sama njabootu xasida yi xasida yi ci ci ci xasida yi rek ci xasida yi rek man mën a xam sëriñ bi ci xasida yi rek seen ku mën a bëggale